wala yajuusu du dagan day nun jaay bor bi day nin jënde bor nee nañu day junj la addis ba waxan ne yonent bi day naha xanil kaali'i bil kaali'i sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gaa yi toppatoo fiq nag dañuy dugal ci addis boobu yett yu bokkut te limaale ci bii mu njëkk a wax muy bay xu day ni bi day ni ñu dolli ca ibtidaa u day ni bi day ni ak fasxu day ni fi day ni bii mu toll nag muy jaay bor jëndi bor moom lu néew néew ñett seq ko te mën naa jàll ba ci ñeent ci misaal mi bu fekkoon ne joxe naa njëg di jënd lu marchandise sàngam ni ki rajo mbaa montar ñu war ma koo jox weer wi deexee waaye weer wi deexagu ba ma jot ci su ma la ko dee jaay kon li ma lay jaay bor la buñ ma ameel maanaam daal lu may wutlu la jotaguma ci daal la koy bëgg a jaay kon loolu jaay bor la yow itam nag bu fekkee dooma fay fasaasa xanaa day jëm dele su boobaa kon li nga may fayee bor la nekkul lu teew su fekkoon ne nag yow itam li ma dal moo la dal la nga may bëgg a fayee daa doon loo xam ne fayeen nga njëg ngir ñu wutal la ko war la koo jox ci dat sàngam mu mel ne man rek nga xam ne kon li ma lay jaay ab rajo la wala montar la bu ma fay njëg ñu war ma koo jox ci weer wi deexee yow it la nga may fayee loo fay njëg la ñu war la koo jox bu weer wa dee loolu de xam nga ne kon ñeent seq na ko ndax jëflante na ma kenn ak yow yow itam am na koo jëflanteel ñu bari ñooñu ko seq nag nga xam ni mën naa andi ay xëccoonteeg ay jàppante te yoon moom day bañ lépp li andi jàppante moo tax ñuy bañ bay xut day ni bit day ni dañ koy aaye bokk na ci li araam wa taxiiru rasil maali yéexe capital ba maanaam yéexe njëg rek daal bi shartin ci ab sart ila mahalli salami ba ci àppub salam ba aw maa wala la nga xam ne ba oda soree na minal xuqudati ca pas-pas ba mooy ci jëflante ga min daalika bokk na ca loolee ba tey sooy jëflanteeg moom ci salam bi nga weesoon léegi yow mi nga xam ne yaay wutlu dara nag nga ne waaje bala ma laa jox njëg yi kat danoo àgg ci délai ba ma ko war a joxe xam ne faaw daay tee njëg gi du ma la ko jox ba bañ àgg ci délai bi may andil li may wutlu mbaa boog néewoo ko faaw ma àgg ci délai boobu waaye dangaa sart lu ëpp ñetti fan te ko bala ma la koo jox nu am ñeenti fan baa juróom ba tey loolu bokk na ci bay xut day ni bi day ni ci ni mu ko tuddee moom mi nga xam ne mooy taalif ndax dane min zalika bokk na ca loolee waaye jàpp ne loolu la ñuy tuddee ibtidaa ut day ni bi day ni di jëflanteeg moom salam dane ko njëg gi bala ma la koo jox mu weesu ñetti fan ki ñeent ba juróom mbaa boog bala ma la koo jox lu dem ba far àgg ci délai ba nga ma war a yute li ma lay wutloo loolu la ñuy tuddee ibtidaa ut day ni bi day ni des na benn boo xam ne nag moo gën a doy waar moo gën a araam ndax moom daa amoon ci jamonoy jeexil ga jëkk lislaam di ñëw moom lay bëgg a wax muy walaaye joosu du dagan fasxu day nin firee bor fii day nin ci bor firee bor ci bor nag muy waxoo moom añ yàkkoon moo de bu nekkee la kañeel la chey um dara fii zimmati yi ci baatam fa taf saxaxoo te nga koy firee fi shay in ci dara aaxara la neen laata tax a jëluhoo lool doo ko gaawe fas fu day ni fi day ni mooy mu ameel la nangam nga bëgg nag lam la ameel ñu soppi ko leneen lu bokkut ak loola ni ki mi ngi la ameeloon ñetti junni nga bëgg ngeen soppi ko ab gàtt wala t-shirt bassin mbaab rajo mbaab montar nga xam ne kon jëmmi lam la ameeloon lañ bëgg a soppi mu ameel la leneen loola nag la cay baax mooy ñu teewal ko fi saasay saasay saasa mu bañ a jëm dele su jëmee ci jëmmi dele ba nga xam ne ca la lu njëkk la jëman ba dele bu ko yées wute nañ ca am nañu ko daganal am nañu ko araamal araamal ga nag ca la ñu bari ànd mel na rek mu amee loolu la ñetti junni war la koo fay bu weer wi deexee xam nga ne weer wi deexagut ngeen juboo ci mu soppi ko ab gàtt bañ laa ameel ñetti junni te ameel la gàttu bëy wala gàttu xar ba tey mu jëm ci bu weer wi deexee wala bu weer wi desee juróomi fan ba nangami fan nga xam ne kon délai bi ngeen waxante jëmmi délai booba la mbaa bu ko yées kooku moo am wute ji ndax dagan wala daganut dañ wax ne ñàkk kaa dagan moo gën a wóor su fekkoon day gën a sori nag délai booba moom waxaali wuñ ko moom day araam bu wér a wér a wér amul nattable lay baax daal mooy lam la amee loon buñ ko bëggee soppi leneen na nekk lu ñuy gaawee fi saasee saasu ngeen tàggoo mu jox la ko nga dem mu dem loolu mooy li wóor wala ye joosu du dagan bay xuma jaay loo xam ne lay sa indaka déet muy nekk fi yow xalaa an yakoo na ci kaw mu nekk xaal lan di aji teew xale ko war la dañuy bañ ngay jaay loo xam ne amoo ko da ngay waxaale ki jënd ba noppi nag ba ngeen juboo nga door a jóg di ko wuti ba am da nga ko amam déet nga xam ne mën naa am nga jubóog moom ci njëg dem amee ko njëggu yées googee mbaa nga amee ko njëggu ëpp googee boo ko amee njëggu ëpp googa muy sa ngaañ boo ko amee njëggu yées googa muy ngaañam moom mi nga xam ne moom nga jëflanteel ni ñu def nag léegi ci dëkk bi nit ñëw di jënd xam ne loola yoroo ko waaye nga ne ko demal diw jox la ko fekk xam nga ne sa moromu commerçant moomee am na ko loolu daañu koy def loolu mel na ci dëkk bi léeg-léeg sax ñu laaj ko daa mel ne loolu moytu ga moo gën a wóor lu may nag moom mi nga xam ne mooy yeble ci kookee fekk na mu wax ak kooku bañ juboo ba kooku jaay ko nangam kon loolee nga xam ne jënd na ko ci beneen bitig ba moom ko fa bu fekkee nekkul lu ñu war a peesewaat jox ko mbaa lu ñu war a nattaat jox ko mbaa lu ñu war a waññiwaat jox nga xam ne dem fab rek lay doon mel ne ne kon moom dana woyof dafa mel ni daal ñoom li ñuy diisal mooy kii jënd nga waxaaleeg moom ba mel ne li muy jënd am nga ko te fekk amoo ko da ngay jóg di seeti ba xam da nga ko amam ndir rek te daa mel ne nag lii nu wax nii moom ki koy def wóor na ko ne kee muy yeble am na nangam te nangam la koy jaayee mu daal di ko yebal foofa moom daal daa mel ne xaw naa woyof ci zahir waaye nag suñ ko mënee moytu rek moo gën a wóor xeetu ñam dañuy bañ nga jënd ca dara jotagoo ca wëlbatiku jaayaat ko ci kaw nag ñu war koo peese mbaa nat mbaa wañi ne bu nekkoon ab jal sax nga xam ne moom ne la koo jaay rek nga moom jal ba noona mbaa bu xanaa bu dee suñ jamono ji nga xam ne bu dee saaku saaku ba rek ngay jël noonu amul peesewaat mbaa dara kooku moom mën nga koo jënd ci béréb wëlbatiku jaayaat ko te fekk na jotagoo ca wa isa biata ndem jaay nga silxatan marchandise bi sama ni ci njëkk mu ajjalin guddi gu ñu àppal mooy gu jëm dele fala tashtariha kon bul ko jëndaat bi aqal la ci njëggu yées min hu ci moom naq dan ci teew mi teew aw ila ajalin wala jëm ci àpp duunal ajali gu yées àpp ba al awali bay aji jëkk wala bi ak sara du caageenu ci njëggu ëpp minhu ci njëgu njëkk ga ila ab xada jëm ci dele bu gën a sori min ajalihi ci deleem ba muy ci àppam ba wa amma ilal ajali ndaal jëm ci dele ba nafsihi jëmmi boppam fa dalika loolee kulluhoo léppam jaay sun aji dagan la wa takoonu kon day nekk rek mu xaasatan di ak rotalante mbaa nga ne di ak ràkkatikoo masala mu mel nii siiw la ci fiqhu malik dañ koy tuddee sax bu yooxul aajaal boo demee ci muxtasar xalil da ko faa beral bunt dañuy jàpp ne ñaar ñi jëflante ci wàllu jaayu jënd man nañu defante no xamne buñ ko dé xol ni ci zahir mom dara sikku ca waye buñ ko lañ baté ba ci biir gis ne am na lu ci sikk lo xam dañ ko ca laq ci biir té ku yeex moy ko amutub setlu do ko gis ñu jaaré ko rek ci melni ak jaayante la te fekk na du jaayante nan ci joxe misal bu fekkon ne montor bi dama la koy jaay ab junni weer yi door a teru nga war maa fay bu weer wi deexee nga xam ne kon junni nga ma ameel jaay naa la montar bi ma wëlbatiku nag jëndaat ci yow montar bi fi saasay saasa ci juróomi téeméer mbaa boog mu juboo yow ci jëndaat montar bi ci yow ci juróomi téeméer te man maa ngi lay fay su weer wi xaajee xam nga loolu boo ko dee seet montar bi ma la jaayoon ñëwaat na ci man moom ba noppi bu dee teew mi teew laa ko jëndaate dama lay jox juróomi téeméer léegi nga téye ba noppi nag nu bàyyi noonu rek bu weer wi deexee yow nga jox ma junni baa la njëkk na jaaye montor bi dañuy jàpp ne boo ko dee seet ci biir ki doon jaay montor bi ñëwaat na ci moom mu joxe nag rek juróomi téeméer te bu weer wi deexee ñu war koo jox ab junni day mel ne kon dañ daan aaye mooy lépp la xaalis mbaa wurus am loo ca teg rek moo ñëw foofu ndax loxo bi njëkk joxe moom joxe na juróomi téeméer bu weer wi deexee jox ko junni tegal ko ca kon juróomi téeméer bi nga xamee nag jëndaatoo ko fay fi saasay saas waaye da nga koy jënd ci mu jëm dele bu yées dele bu njëkk ba mooy ni ma waxal léegi rek jaay naa la montor bi ci ab junni jëm ci bu weer wi deexee wëlbatiku jëndaat ko ci yow nag saa montor ñëwaat ci man ci juróomi téeméer yoo xam ne bala ma la koy jox weer wi xaaj ba tey xam nga bu weer wi xaajee moom dama lay jox rek juróomi téeméer xaar nag weer wi dee nga jox ma yu ab junni nga xam ne kon dama mel ne ku la lebal juróomi téeméer diir fukki fala juróom rek nga tegal ma ca juróomi téeméer ñaari mbira ngoog bi ko ñetteel nag mooy bi ma la jaayee montor bi dama wëlbatiku jëndaat ko ci njëg goo xam ne mu ëpp googa waaye nag dañuy toppal dele ba ba mu gën a sori mel ne montar bi ni ma la ko jaaye woon ci ab junni jëw weer moom soppiku wut waaye dama wëlbatiku jëndaat ko ci yow ci junne juróomi téeméeri mbaa ñaari junni ci kaw nag weer wi dee bañ tegaat ca waneen boo ko dee seetlu rek saa montar ñëwaat na ci man te bu weer wi deexee ma jox la benn junni muy jundi bi ma ko jëndaate te nag yow yaa ngi xaar ñu teg ci weneen weer man ma jox la ñaari junni yetti anam yi boo ko seetloo bu ci nekk rek ki doon jaay yëfum lam doon jaay ñëwaat na ci ay loxoom te it ñoom ñaar ñi jëflante ñàkku ci ku joxe xaalis boo xam ne buñ ca tegaatee dele sàngam ñu jox ko xaalis ba noppi am luñ ko ca tegal loolu nag moo tax bu dee ci yoonu maali moom dañuy aaye anam yi mel noonu yetti anam yi ma la wax nag moom la yaxal moom téere bi ne la araam na bul ko def waaye rek lii des koy tomb tomb yoo xam ne jëfewut mën nga koo dégg nii ma la koy bëgg a waxee da ngay wax ne moom mi nga xam ne moo jaay dara mu jëm dele bu wëlbatikoo di ko jëndaat ca kooka benn mu jëndaat ko fa saasay saasa loolu mooy teew bi teew mbaa ci dele bu yées booba mooy dele bu agul ca bu jëkk ba mbaa dele booba képp mbaa dele bu gën a sori booba loolu ñeenti tomb la ndax teew bi teew dele bu yées booba dele ba képp dele bu gën a sori loolu ñeenti tomb la ba noppi nag lu mu ci mën doon rek njëggam koy jëndaate benn mu tolloog gu jëkk ga mbaa mu yées ko mbaa mu gën koo bari nga xam ne kon tomb yi boo ko dee seet fukki tomb ak ñaar lay doon ci tomb ak ñaar lay doon ndax nee nga dele yi ñeenti dele la jëndaat ko fi saasay saasa ak jënd ko ci dele bu yées booba ak dele booba képp ak délai bu gën a sori kon ñeenti délai ngoo njëg itam nee nga ñett la ndax benn jëndaate ko njëgg képp mbaa njëg gu yées mbaa njëg gu ko gën a bari loolu nag kon ñett ba muy ñeent fukk ak ñaar la ñeent ba muy ñett it fukk ak ñaar la fukki tomb ak ñaar yi nag yett yi ma la wax léegi rek te ràññeel ko misaal ko moom la borom téere bi wax ne moo aay waaye nag say boo jàpp ne su fekkoon ne kenn du jox sa moroom dara dara dara dara dañuy ràkkatikoo rek kon yëpp yëpp yëpp day dagan ndax bi ma la jaayee montar bi ci ab junni mu jëm ci bu weer wi deexee wëlbatiku jëndaat ko ci yow ci juróomi téeméer fi saasay saasa bu fekkoon ne du ma la jox juróomi téeméer dañuy bàyyi noonu rek su weer wi deexee mel ne waran naa laa jox juróomi téeméer nga war maa joxub junni nu far nag def noona nga jox ma juróomi téeméer rek kon xam nga lañ doon bañ mooy ki njëkk a joxe joxe lu néew di xaar ñu tegal ko ca dara loolu amu ci loolu moo tax kon mboolem tomb yépp yépp yépp buñ nee ak luñ mën di waxante rek ka war a njëkk a joxe moom du joxe dara day bàyyi rek bañ àgg ci waxtu fayante wa bu fekkee yaar njëg ya yemoon képp ñu rakkati ko yem ca bu fekkee genn njëg ëpp na moroom ma ka war a fay lu ëpp daal man daal di joxe rek daal lam ëppee mel ni rek li ma misaal léegi nga xam ne montar bi ma la jaayoon ci ab junni mu jëm weer wi deexee wëlbati ku jëndaat ko ci yow ci juróomi téeméer fi saasa mbaa juróomi téeméer ci bu weer wi xaajee waaye man mi war a njëkk a joxe kat du ma la jox dara dara dara dañuy bàyyi rek ba weer wi dee mu mel ni ameel naa la juróomi téeméer nga ameel moom junni fekk joxuma la woon dara bu ko defee nga jekki-jekki rek daal may jox juróomi téeméer mu daal cee yem képp kon nag nga seetlu ne lim la wax ne la boo jaayee marchandise ci njëg mu jëm dele bul ko jëndaat ci njëggu yées googa te mu teew mbaa njëggu yées googa te dele ba yées booba mbaa njëggu ëpp googa te dele ba gën a sori gën a topp daal di wax ne la boo weesoo lool nag moom su fekkee ne dele bu njëkk ba rek ngeen topp moom dara nekku ca moom daal mboolem fukki anam yeeg ñaar muy fukki tomb yeeg ñaar buñ ca sarte ràkkatikoo nga xam ne ki war a njëkk a joxe du joxe dara dañuy bàyyi rek ba àgg ca délai ba moo xam jëmmi délai ba la moo xam bu yées booba la moo xam bu gën a sori la waaye moom daal ki war a njëkk a joxe moom du joxe dara dañuy bàyyi rek ba àgg ci délai ba mujj a mujj rek bu ñamoo képp ku ne dem buñ ëppantee nga war a joxe lam ëppee joxe su boobaa daal yépp yépp anam yéppay dagan waaye nag safaan bu mooy bu ñu ne woon duñ ràkkatikoo buñ àggee ci délai ba doonte suñ ñaari bor yi ñoo yemoo it mooy li ma la ameel ak li ma ameel ñoo yemoo it daa lay jox nga jox ma su boobaa dañ koy daal di aaye ndax li ñuy wax ibtidaa ut day ni bit day ni muy amee leen te gi yoon di bañ kee gàddu ci loosam ameel kee kee gàddu ci loosam ameel moroom ma loolu yoon da koy bañ saa yu nekk ci wàllu njaay ci misaal montar bi laa la jaay ci ab junni mu jëm ci bu weer wi deexee wëlbatiku jëndaat ko ci yow ci ab junni ba tey rek bu weer wi deexee nga xam ne kon saa montre ñëwaat na ci man waaye dañoo sart ne buñ àggee ci weer wi dee dama lay jox ab junni nga jox ma ab junni nga xam ne kon duñ ràkkatikoo déedéet danoo danoo danoo sartante ne buñ àggee ci weer wi dee faaw daa lay jox ab junni nga jox ma ab junni te gis nga ne kenn ku ne ab junni képp la amel moroom waaye daal loolu mooy sart bi loolu ñuy wax ibtidaaw day ni bi day ni da ci am mooy damay gàddu ci sama loos ameel ab junni ba kere weer wi dee ba baa la koy jox saa jaan door a wàcc yow itam nga gàddu ci sama loos ameel ma ab junni mu war la war la war la ba kere weer wi dee nga di ma jox junni mu door laa wàcc loolu lañ cey bañ nde bu fekkoon ne bu nu àggee ci weer wi dee moom dañu ràkkatikoo rek nga dem ma dem noonu lañ sartante kon mu daal di baax defe naa noonu ki déglu jàpp na ko bu baax bokk na ci li ñuy aaye lool nag te ñu war koo moytu nit loru ñëw ne la lebal ma nangam mu wóor la ne moom kat jëmm ji muy leb daa xam ne nan nga ko jaaye ci njëg sàngam rek mu jëm dele waaye moom xaalis la bëgg boo ko lebalee itam day wëlbatiku jaayaat ko fi saasa ndax xaalis bu faje soxlaam la bëgg lañu bañ na yooyu jamono mooy nga jaaye ko ko njëgg la neex wëlbatiku jëndaate ko njëg gu yomb mbaa nga yebal keneen mu dox ci suuf dem jëndaatal la ko jën gu yomb jënd njëg gu yomb ndax fekk na yow nga xam ne moom mii moom li tax muy leb lii bëgg a faj soxlaam rek la ne faaw da koy jaayaat moom wala ba'sa ayut bi shira'il jusaafi ci jënd ab jal fiima ca la nga xam ne yukaalu def na ko nat aw yuwazanu wala defi ko peese si waddanaa niiri ndari ay dinaar wa daraaximi ak ay dërëm maakaana li feeg nekk na wala maakaana la nekk maskookan di luñu sikaal daa wax ne lu ñuy jaay di ko nat mbaa lu ñuy jaay di ko peese man nga caa boole itam la waxut mooy lu ñuy jaay di ko wàññi mel ne nen walay xaal su ngeen juboo moom may jaay mën na la caay jaay ab jal bu neeb jal nag mooy loo xam ne manesoon na ko seet ba xam ko ñu jekki-jekki jaay la ko noonu rek bañ koo natt ba xam nu mu toll bañ koo wàññi ba xam nu mu toll bañ koo peese ba xam nu mu toll xanaa jaay la ko noonee rek loolu mooy jaay ab jal kon daal luñ mën a peese mbaa ñu mën koo natt mbaa ñu mën koo wàññi ba xam ko ñu jékki-jékki jaay la ca loo xam ne kenn nattu ko kenn peesewu kenn wàññiwu ko loolu moo tudd jaay ab jal moom nag ni mu ko waxee daa gàtt waaye daa bari ay sart sart ba ci jëkk mooy nattoom bi rek mu dib jal waaye boo nee ko jal fii ab jal jaay ma ko du baax ñaareel ba mooy na ne jonn teew ñu di ko gis nga xam ne dañuy sart kay jaay ak kay jënd ñoom ñëpp ku ci nekk nekk njàccaar kenn bañ caa nekk gumba waaye bu ca kenn nekkee gumba rek du baax ndax jal moom dañ cay sart ñu gis ko te bu kenn ko gumbaa du baax ñetteel ba mooy jal ba bu mu rëy rëyaay boo xam ne daal loo ko gam-gamle gam-gamle rek juum ca mel ne angaar ab angaar moom bu fekkee xamuñu nam toll rek daanaka loo ko gam-gamle gam-gamle rek juum ca du nangu jal mel noonu ñu koy jaay ñeenteel ba mooy ñoom ñi koy jaayante ñëpp nañ ko umpale suñ ko bokkee xam moom du aay ndax day mel ne kon nekkatu ab jal ndax ne ko xam nañ nam toll rek ñu te ñoom ñëpp ñoo ko bokk xam kon jaay lu ñu xam la waaye nekkatul ab jal lay bon kay mooy kenn ka xam na jal ba toll kenn ka bañ koo xam loolu moom bu amee rek mu yàqu juróomeel ba mooy ñoom ñi nga xam ne ñooy jëflante ci jal ba kenn ku ci nekk miin loola ba nga xam ne buñ ca jalee dara nga mën a gam-gamle ne nangam lay war a toll nga xam na nga ko gam-gamlee daal moom sa xam-xam tax na loolee nga ko gam-gamlee lam koy ëpp du bari lam koy yéese du bari ndax xam ngoo xam loola ñoom ñaar ñëpp nañu mel noona juróom-benneel mooy suuf sa nga xam ne fa la jal ba jalu na maase bañ a tunde bañ a xóot su fekkee ne fa jal ba jale rek ñàkk naa maase kon buñ ko seetloo daal jàpp ne ñàkk naa maase tax na kii kat nax na moroom mee kañu nax mooy seet bu ko neexee wéyal bu ko neexee bàyyi juróom-ñaareel bi nag moom muy sart juróom-ñaareel bi bu dee ci lu ñu wàññi rek lañ ko cay sart mooy bu mu doon loo xam ne mënees na ko wàññi te doo ca sonn bu dee loola lu ñuy jaay la diko baaxoo wàññi te it mooy soo ko wàññi te doo ci sonn di nangu ko jaay ci jàll faaw kon ñu wàññi ko njëkk door koo jaay sartu juróom-ñetteel bi mooy loolee kat bu mu doon loo xam ne ay benn bennam day wuute lool te seeni njëg di soree xam nga lu mel ni ak jur ni ki ay xar mbaa ay bëy mbaa gàtt mbaa nag mbaa gëléem ak yu demee noonu du nangu ko ci jaay coogal te kenn wàññiwu ko seetuñu ko ay benn benn ndax xam nga dañuy wuute lool njëg dangay gis benn xar mën a jar junni yu bari nga gis am xar di jar ay téeméer dong kon xam nga ne benn benn xar ya ak benn benn bëy yaa ngi demee noonu daal moom mën naa apparente lool lool mën naa sore lool lool lu mel noonu du nangu ko ci jaayub jàll déedéet xanaa kay day doon loo xam ne ay benn bennam du apparente lool ak njëgam itam du sore lool mel ne xaal boo ko dee seet séen ko apparente du faral di bari lu mel ne mango lu mel ne darkase lu mel ne sump lu mel ne aloom yooyu nga xam ne daal moom li ci ëpp wala nen gis nga nen li ci ëpp duñ faral di appante lañ mën a jaay ci jal daal day doon loo xam ne benn benn ya duñ faral di appante ci ay jëmm duñ faral di appante njëg appante gu sore lool lool wa ab sart la ca sartu juróom-ñeenteel mooy jal ba bu mu doon loo xam ne lañ cay fay muy njëg moom des koy natt te wenn xeet wa dong la mel ne dañoo jël am pepp mbaa ab ceeb di ko ko jaay noona te moom la muy fay pepp lay doon mbaa ceeb lay doon boo xam ne natt nañ ko ba xam ko mbaa pees nañ ko ba xam ko kon xam nga ne bayxu majhoolin bi maalumin lay doon dagam lee jal la lañ cay fay muy njëg nag moom dañ ko natt ba xam ko mbaa ñu peese ko ba xam ko loolu du baax bu dee wenn xeer wa déedéet dégam lépp wenn xeer wa dong la du baax ni ki pepp ak pepp wala ceeb ak ceeb lee nekk ab jal lee nekk lu ñu peese ba xam ko loolu du baax mbaa lee nekk ab jal lee nekk lu ñu natt ba xam ko ba tey du baax bu fekkoon ni sax itam du wenn xeet waaye yaari xeet yooyu ku ca nekk dañ koy jëflante kat ci cosaan daawuñ ci jëflante noona mel ne kee day joxe suuf nga xam ne suuf li cëpp ko masaa di jaay doo ko natt kee joxe pepp te pepp moom li cëpp dañ ko daan natt duñ ko masaa di jaay ci yooyu jamono lu mel noonu kon buñ doon jëflante ci jalub pepp ak jalub suuf te nga xam ne jalu pepp ba moom lañuy jaay te kenn du ko natt kenn du ko xam suuf sa nag moom lañuy natt moom ba xam nu mu toll su boobaa ku ci ne génn ci cosaanam ndax pepp bañ aadoo woon a natt te dañ koy jaay rek noonu ci ab jal kenn nattu ko suuf ma nga xam ne moom lañ aadoo woon a jaay noonu rek te bañ koo natt te des koy natt ci jëflante bii kon kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar génn na cosaanam boobu itam du baax bu fekkoon ne nag kenn ku ne ci ñoom ñaar daa nekk ci cosaanam mu yaari xeet yu bokkut dara du ca nekk mel ne misaal mi nga joxe léegi su fekkoon ne suuf sa lañuy jaay ab jal pepp mañ cee fay nag moom ñu natt ko su boobaa ku ca nekk aw na ci aw yoonam boobu xam ne mooy cosaan la ci buñ ca mësaat jëflante kooku moom dana baax kon sart yi ñu wax buy dajee ci ab jal lees koy door a mën a jaay léemu ne nag si wat danaa niiri wat darahimi maakaana maskuukan te wane ne wur sa xaalis wa nga xam ne dañ koo tàmpe tàmpem nguur ga ba di ci jëflante ca dëkk ba ba ci béréb booba jeex na kenn mën caa jëflante te wàññiwoo ba xam nu dinaar ya toll mbaa nu dërëm ya toll mbaa bu dee xaalis CFA mbaa beneen faaw ñu wàññi ko ba xam nam toll duñ mën a jekki-jekki rek jëflante ca ci noo xam ne kenn wàññiwu ko ba xam nu mu toll mel ne doo mën a fekk rek ku yor weccet jal ko fi suuf yow nga yàkkamti dal koy tegal rek kayitu ñaar téeméer dal tonni jal ba dem mel ne weccente ngeen yéen ñaar weccente googu ak jaayante lañ koy tuddee mais noonu kon dañoo wàññilee da xam nañ kayit wonam toll te lee xamuñu ko kenn du ko nangu wa amma niqaaru dhahabi ndaal séem bi wurus séem bi mooy ay morso yi wurus wal fiddati ak xaalis muy morso xaalis fa dalika loolee jaisun aji dagan la fiihima ci ñoom ñaar bu dee nag morso yi wurus ak xaalis yi nga xam ne dañ koy xel di ci tëgg ay jaaroo ki takkaay rek yu demee noonu moom mënees na caa jënd ab jal wàññiwul dara wala yajusul dagan shiraa'u raqiqi jënd ay jaam wa qiyaab ak ay yére jusaafan ci ab jal weesoon nan ko léegi maanaam bu dee loo xam ne ay benn bennam day faral di ëppante njëg lool lool di ëppante ay jëmm lool lool des ko mën a jaay